sëñ Chérif Fantama di Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadel ibnu Cheikhul Khadim Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal Amadou Ba Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine culturel Excellences, chers invités à vos qualités et rangs vous comprendrez aisément le plaisir immense que j'éprouve à me retrouver ici parmi ce beau monde à l'occasion du vernissage de l'exposition de photos de notre vénéré cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Quelqu'un me disait un jour, je le cite, Est-il encore besoin de monter une exposition de photos du Cher Tellement celui-ci, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est en permanence présent en chacun et chacune d'entre nous. plus exactement dans le musée éternel du cœur, de nombre de ses descendants, héritiers et de fidèles talibés, d'une part, mais aussi parce qu'il est au cœur du musée général de l'histoire de l'Afrique et du monde, et donc au-delà même de celle du Sénégal. Je répondrai tout simplement que ce n'est jamais un fait ordinaire de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant sur la vie ou l'œuvre de Cheikh Hamadou Bamba Khadim Rassoul. Pourquoi je le dis? Parce que Cheikh Ahmadou Bamba est à la fois mission et transmission. Il est à la fois mémoire et retour permanent vers le futur, comme dirait l'autre. c'est vous dire la nature multidimensionnelle du personnage Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba véhicule les valeurs inaltérables d'une génération bénie des valeurs qui transcendent l'espace et le temps pour inspirer les générations futures dont certains repères sont de plus en plus impropres à la consommation collective Cheikh Ahmadou Bamba, dans sa générosité légendaire, ne connaît pas le temps qui passe. Il accompagne et s'accommode de temps pour toujours mieux servir Dieu, subhanahu wa ta'ala, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses concitoyens. Il est donc en soi le temps. Il donc en soi le temps. Le temps à travers les balises de la mémoire, continue de dérouler son tapis de lumière et de féconder les esprits et leur ouvrir les voies d'un futur radieux, si toutefois ils savent décrypter les sens cachés à la fois de ses actes et de ses enseignements. cette exposition comme une étape importante, une de plus sur le chemin de la découverte jamais achevée et toujours renouvelée du Saint-Homme, la réponse à la question posée à l'entame de mon propos, pense à l'évidence qui coule de source. Oui, on aura toujours besoin d'exposer ce genre, toujours avoir des arrêts sur image au propre comme au figuré, qui sont autant de sources d'inspiration et de catharsis salutaires. Soyez-en remerciés. Merci beaucoup au comité d'organisation qui a eu cette idée salvatrice de récupérer ces images et de nous les amener ici au Sénégal. mbokk yi bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant Serigne Touba di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba loolu dafa war a rythme suñu dundu saa ne bu ñu noyee bu yéegee war nañu ni jërëjëfe sëriñ Touba bu noogi wàccee war nañu ni jëfe sëriñ Touba sant sëriñ Touba nag ni ko jëre jëf mooy sant yàlla ci ko xam yàlla sant sëriñ Touba bu wér mooy sant yàlla ci ko xam yàlla ndax sëriñ Touba mbiram yépp suñu boroom la te jamono bii nëx na nëx boo xam ne bii bu ñu amul woon jàmbaar ju mel ni Serigne Touba xawma fu ñu jëm kon sëriñ Chérif yow mi nga xam ni yaay sëriñ bi wax ndaxte boroom kàddu bu taxawee ku ñu dénk kàddu amatul kàddu ñun seeni taalibe lañu dañ leen di liggéeyal rekk ñun ak mbooloom yépp ñun amuñu lu dul sëriñ Touba. bëgguñu leneen nit lu dul Serigne Touba bëgguñu daraja bëgguñu dara Serigne Touba rek lañu bëgg kon foo leen nekk rek da ngeen a baax rek di ñu jox ay cër waaye yéen a war a tàmbali yéen a war a yeggale sa mag ju baax jooju nga xam ni moo la fi yebal muy Cheikh Mouhamadul Mountakha di sëriñ tubaa ñoo ngi ñaan fu ñu toll yàlla yàggal ko fi te wéral ko. te ñu yàgg àdd ak moom bés bi ñor na ko lool monsieur le premier ministre ñoo ngi lay jox nuyoom ak tatagalam ak tamit ay encouragement di ko ci sa loxo président Macky Sall mu mbokk na ko fii lépp mel ni nataal ci ndimalu yàlla ak ay taalibe yu baax ma ci profito di nuyu suma sëriñ bële di sama mbokku taalibe ñu koy wax maître Moussa Mbacké ndax man mii maa ko woo ñu waxante ci enchère yi ñu juboo ci ba ni bu ñu fa nekk di xëccoo nañ wut comité boo xam ni sëñ xaadim mii moo fa nekkoon ak ñi mu àndal ñu fexe ba doon ab dànk mu bañ a am concurrence ñu mën a jënd photo yi mu yëkkati koppar yu bari joxe ci kon war nañ ko sant gërëm ko waaye boppam la defal ndaxte sëriñ Cheikh sëñ Modou Moustapha Cheikhul Khadim am geneen wet di sëtu maam Cheikh Ibra Fall ndax mooy maamu ndeyam kon ñoo ngi koy gërëm di gërëm ñi ci doon dara ñépp bi nga xamee ni loolu am na murit benn lañu bu kenn amee ndam ñépp am nañu ndam kon nañu fexe ba ñun ñépp ñu jàppalante bëggante ndax kenn lañu am muy sëriñ Tuuba ñu ànd servir ko sëriñ bi nag lii mu wax ni c'est la solution moo am bu wér sëriñ tubaa c'est la vraie solution ndaxte ki ñu jàppoon ni mooy tubaab bi te yoroon lépp man lépp ñu ji am ay théorie muy le monde ñu ciy doxale àddina bi théorie théorie yépp dem nañu ba ku ci ne xam nañ ni fa ñu moom nag mu indil ñu modèle de société boo xam ne bii jëlale naa réew mi waaye bu ci àddina ngoyee àddina jàkk alaxira jàkk kon kooku mooy solution lépp luñ koy tudd mu doon ci dara walla mu man mas laal wala mu maskoo koo tudd ni nitaalam yi mel rek lay mel kon kooku war nañu xam ni mooy solution tubaab bi nga xam ni tubaab la te ñu jàppoon ni ma nga ci réewi tubaab yi ay maamam newoon fa dama dégg ñuy wax ni sax doomu architecte ba la déedéet xamu ko dafa jënd photo yi bi mu ko jëndee collectionneur lañu dañ koy jaay mu xool ko muy ab abba mu bëgg ci juróomi euro cinq euro cinq euro war naa doon mille huit cent francs CFA ab astaghfirullah cinq euro trois mille et quelques francs CFA trois cent trois mille trois cent mu am juróomi photo mu bëgg ci mu ni da loolu la koy jaaye mu génn ñu koy woo ba mu tiit ni lii ma dajeel lu mu doon ju dem ba muy jar ay millions yàlla moo ñu dimbali waaye bu bëggee woon walla mu am ak xereñ bu ci bëggoon milliards ñu jënd ko bu ci bëggoon milliards ñu jënd ko te loolu originaux yi la de originalu photo yi dañ ko imprimer sëriñ bi signéti ñuy jaay benn foto million am na benn foto ku ci man 10 million am na ñu ci man 20 millions waa original bi kon lu mu doon jar man de jaral na ma sama jëmm loolu mooy wone ni Sëriñ Tuubaa ndimmal bu yàlla indi ci àddina la bala maa woo réew yi ci àddina Sénégal dañoo am loo xam ni xamuñu ko li ñu am kenn amu ko sa wéyjur wu baaxoo moo ko waxoon sëñ Sërif Fatma maa sëriñ Fàllu mag la te xam na sëriñ Touba moo ni ki ñu am kenn amu ko kon bon damay bañ a guddal dama ko fay yemale waaye may woo suma mbokk taalibe yi di leen wax ni kër gu ñuy liggéeyal sëriñ bi jaadu na ñun ñoo ko war a liggéey bu dul woon sax ay nitaal bu ñu ñëwoon na ku nekk def ñaari junni fukki junni ku ci nekk loo am war nga ko cee def ñu wut nag ay nitaal muy ab barkeelu tey jii bu ñu newoon def nañ ci million million yi kër goo dem war nga ko fa fekk ma ci woo sama bopp di leen woo te di leen xamal ni ndigalu Cheikh Mouhamadul Muntaqa la barki biig moo ma woowal boppam ni ma nanga fa dem ànd ak ñoom te nga taxawu leen murit nag ndigal rek lay joxe kon maa ngi leen ciy woo nitaal yaa ngoog ku ne am na loo man ku ne ku amul million man nga fukki junni man nga ñaari junni man nga juróomi téeméer mais pour conclure ñoo ngi gërëm bu baax a baax lu premier ministre mm. ni ko lay mbay wax pexe rek mm. wax na dëgg ñun murit lañu kenn lañu bëgg kenn lañuy wut muy sëriñ Touba na nga fexe ba am ko boo ko amee rek di nga ñu am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu